xutba bi day santati yàlla rek eh, ci jullit ñun ay jullit lañu yàlla def ñu cee baaxe eh, li mu ci wax yépp mooy mu fàttali ñu ne yonti yàlla Ibrahima nga xam ne alayhi salaatu wa salaam yal na yàlla yokk leeram ci tax barkeem Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam tànn na ko ne bokk na ci ñi nga xam ne euh, wax dëggu yàlla euh, ku muy ku muy muy toppan muy topp la. Euh, bés bi bésu topp ndigalu suñ borom tabaaraka wa taala la ndax moom moo waxoon yonti yàlla Ibrahima ci gént ay yoon yu bëri ne ko reyal sa doom ji nga xam ne yàgg ngaa wut doom te amuloo ko donc. doom ni mu neexe nga wut besoon dóor ko am mu ne ko rey ko waaw ah, ba mu ko waxee mu wax ko ah, doom ji doom ji ne ko defal li la suñu borom wax man dey duma ci deltu ginnaaw donc ndigal looloo tax mu am doole ñun murit xam nañ ne ndigal moom ah, liggéey yëpp ndigal ci la sukkandikoo Euh, alaaji Mbackiou fay mii nga xam ne euh, suñu jawrin la ci euh, Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul rawatina fii ci dakaar ci Masalikul Jinaan bii ñu toog nga xam ne mooy néegu suñu borom tabaraka wa nga xam ne dañ koy fàttalikoo Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul nga xam ne digganteem ak boromam dara nekku fi lu dul nee na diggante jaam ak boromam mais nag jaam boo xam ne dafa jox boppam lépp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ci mbindeef boo fi duggee da fàttaliku ne nit doomu aadama li am solo mooy nga déglu topp ndigal topp ndigal ci ci topp yoonu di islaam islaam yàllaa ko waxal boppam nee na diine ci moom daal mooy islaam moo ko wax ci alquranu karim donc fii bésu fàttaliku démb la imaam bi loolu la ñu fàttali ne doomu aadama ala kulli alin dafa war a sopp moroom ma warul mukk di génnee ci làmmiñam ci suuratu baqara lañ ko wax sax suñ borom tabaaraka wa taala nit ki daal war na di moytu di wax ci làmmiñam loo xam ne day lor lor moroom ma moo tax tey jii jàng na jàngaat nañu lu bëree bari ci suñu diine ndax diine daal mooy diine mooy li nga xam ne daf ñuy teg ci yoon siraatal mustaqim ci dëgg ak dëggu wante également ci gëm boo loo xamante ne yàlla moom bu ne nii la rek yal nañu yàlla may kattan ak ngëm ba ñu defee ko noonu. xanaa rek santaat yàlla dañ fi ñëwal le président Macky Sall moo ñu fi yebal di taalibe di. yàlla teg ci loxoom moom mooy tànn euh, ku ko neex mu jox ko nguur jox na ko nguur senegal wante nguuroowu ko ci euh, lu ma neex laay def wala nu ma neex laay mel def ko topp topp ndigal topp euh, li nga xam ne mooy li gën ci doomu aadama mooy njub ak jubale wante nekk nitu jàmm nitu jàmm ci la amee nguur gi ci la ñeneen ñi amee nguur gi ci Sénégal day ñaan yàlla aussi ku fi yàlla jox nguur rek na jaar ci yoon yoon nag kenn ku ne la war ki wut ak ki ko yore ak ku ko bëgg a am dañu war a jub jubal dañu war a topp yoon mu ne nag ci élection yi di ñëw du am exception euh, dañu nar a topp rek teg lépp ci yoon teg lépp ci yoon ñaan nit ñi ànd ak seen sago kenn ku ne nga ànd ak sa sago rawatina ñi ànd ak moom moom amul kii amul kële def ne kenn ku nekk ci ñun na jaar ci yoon booy wut jaare ko ci njub ak jubale yàlla mooy joxe wante nga nga nga sabablu nag di ñaan rek yàlla élection yi mel ni comme élection yëpp ñu def ko ci jàmm def ko ci respect def ko également ci ñu fàttaliku ne Sénégal yàgg naa def ay élections mais saa yiñ ko defee ci jàmm lañ ko def bii itam yàlla na jaar ci jàmm ndax jàmm rek moo ñu jig jàmm moo gën ci àdduna moo gën ci alaaxira alaaji Mbàkke yu ñu lay sant di la gërëm président Macky Sall nee na mu ngi lay jaajëfal sa taxawaay ci diine bi sa taxawaay sax ci askan bi ndax fii ku fàttaliku rek barki dem boo njaay bi fi euh, suñ xalif général euh, sëñ Muntaxa Basir Mbakke bi mu fi ñëwee xam ngeen ne ñëwalu fi boppam umma bi la fi ñëwal wante également doomu aadama euh, Muhammad sallallahu taala alayhi wa nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool def ko tànnal boppam muy Xaadim Rasool ci ndigalu boromam ah dafa ba mu génnee ca jafe-jafe ya dafa wax ne moom mu ngi ñaanal ñëpp doomu aadama yëpp loolu war na nekk ndigal ci ñun tegtal ci ñun ne ñun ñëpp benn lañu nañu ànd ci njub ak jubale yaakaar ci jàmm ak ak salaam ba Sénégal nekk réew mu mucc ci ci ci musiba ak ak jafe-jafe ak fitna yal nañ ko yàlla defal barke Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul